seet ndam rek incha allah ndam yàlla baax na ndam rek Sadio Mané kere bee waaw fas yéene nekk si préparation finale incha allah fas yéene dóor deux saro si kàttanu yàlla ndam la si Sénégal incha allah ñu préparé si képp laay kàttan final bi rek bu soobee yàlla waaw di yëngal rek naan Sénégal ak jël ndam rek kii sama gaane Serigne di pentour yaa ma gën a xam yëngal rek Bamba gi nii yëngal rek Sénégal ñëw incha allah waaw kontaan rek kontaan ci lépp rek waaw incha allah am na ñëngoon waaw ndax léegi eh, gëmuñ ko ñu ni gëmuñ ko waaw kon nag dañ jàpp ñëw rek incha allah eh, ndam incha allah bu soobee yàlla man koy tuba billahi dañuy xeex ak moom tuba ko incha allah bàkk maam Seera Faal bi ko Sénégal demee final xol yëpp a doon benn ñi xoloo woon jiwoo nan réew mi lii rek daan neex ñun xoolal lii rek lañ leen ñaan ñuy dem final di gagné gagné moo neex ci biir xol yëpp ànd nan isaan yi ñaan ñu muy def 19 heures Sénégal gagné 2-0 Sadio Mané Mbaye Niang incha allah ñu jël coupe bi ni ko fii suñu xol sedd ñu féete ak un mois Macky Sall nañu may lool suñu gagné ñu féete ak un mois Sénégal jëm kanam wala tontir baa ngi nii jërëjëf. waaw monsieur Pod Seera Faal amul la deux Seera yu mag Sadio Mané Sadio Mané maa la ko wax Pathé Béré Sène may jaañ may ñaan deux Seera incha allah ñu Sénégal neex ñu féete ko réew mi neex Sénégal yi fal war na yàlla dañoo bëgg a yeewu mu ndakaay euh. mu ndakaay mu ndakaay ah dama ni moo ku julli la na nga ñaan ku na nga ñaan boo leen jëlee boo leen baal wax gars yi ne léegi nañu muñ xaar heure bi jot rek coupe bi day ñëw incha allah am dañ ko ndax coupe bi day ñëw coupe bi day ñëw coupe bi day ñëw coupe bi day ñëw pare nañ ko rek waaw coupe waaw c'est la couleur nationale du Sénégal. waaw c'est la couleur nationale vert jaune rouge rek. c'est le Sénégal qui a gagné. tur bi day ñëw rek le final c'est Sénégal ñëw ci jàmm rek ak jàmm ak salaam. waaw waxal oo. ah jël oo. salaamaaleykum maa leen nuyu yëpp di wax ne xoolal coupe bi nañ ko préparé. coupe bi nañ ko préparé coupe bi day ñëw 11h lay doon. Ah. buñ jëlee timis ba pare. deuxième mi-temps bi incha allah 11h lay doon nañ pare feete ko dañu leen di a kubbi ci kàttu yàlla ci barke sëñ Babacar dañ ñu ngi waaye final bi waaw di ñaanal suñu ñu jël kubbi rek moom la lañ bëgg moom la ñuy xaaraat yëpp yàlla yàlla suñu borom defal ñu ko ñu am ko ci jàmm te yam ci bii ñu demaat ay kubbi kubbi incha ci barke sëñ Tuubaa sa kontaan naa baax kontaan baax waaw ah, jërëjëf waay merci waaw 2-0 la bëgg 2-0 waaw di ñaan ndam waaw ñëw Sénégal waaw ñëw fii Sénégal ñu féete ko ba mu neex. di ñaan Sénégal jël ndam li ndax ñun ñëpp gis nañ ci suñu bopp xale yeeg ñëpp nekk gis na sa bopp ñu ngi liggéey ñu ngi jaay macha allah daal di ñaan ndam li gën a dikk waaw. Macky Sall tamit jàppale xale yi tamit ñu liggéey ndax fu mu toll xale yi am nañ jom ndax ku gis ne xam ne Sénégal ñëpp am jom dëgg neexul waaw kay jaajëf ndam. ñu ngi ñaan yàlla Sénégal jël ndam la ndaxte soxal nañ ko toog ndaxte gën lu kiy wax rek Sénégal na jël ndam rek coupe bi bu neexee ni coupe bi dañ koy jël waaw si yàlla su neexee yàlla suñu borom coupe bi dañ koy jël. Algérie a loolu lañ ko tegal suñu ñëwee tey waaye yow 3 heures j'aime mon pays dañoo bëgg suñu réew. de ñun demuñu France demuñu Italie demuñu fenn. Sénégal la nekk di dóor suñu waar. fii ñuy may fii mooy suñu teranga. je paye mon argent avec Sénégal. waaw waaw. 1000 francs lay jox yaa booy 1000 francs Sénégal kii gañ bu gañee ñëpp la gañal portugais mandinka bi day fanaan si incha allah ay dem port lañ jëm guddi guddi dañ koy dox ñaas soriwut boo fay ñaar ku sax dem. yàlla yàlla defal jàmm ngoon ak jàmm ñu dóor naar yi indi gars yi indi fii coupe bi ndam lu sedd guy ñu ànd fene ko affaire bi neex waa réew mi jëm kanam France dellu ginnaaw noonu rek la yàlla na yàlla defal jàmm daal gars yi dóor naar yi dóor dóor dóor leen bay bay war seen kaw waaw yàlla yàlla defal jàmm ngoon ak jàmm ñu dóor naar yi. indi gars yi indi fii coupe bi ñu sedd guy ñu ànd fete ko bi neex waa réew jëm kanam France dellu ginnaaw noonu rek la yàlla na yàlla dafa jàmm daal gars yi dóor naar dóor dóor leen bay bay war seen kaw waaw. Hmm, Sénégal dóor maanaam match bi <laughs> waaw coupe bi daal la ñuy laaj si coupe bi moom egsi na ba pare déjà gisoo déjà la ñuy jubilé rek waaw. c'est le Sénégal qui gagne ñun ñu ci ginnaaw Lions yi allez les Lions ndam li lañ leen laaj incha allah. ginnaaw ban sant yàlla juri ci yonent bi sant sunu ñaar waajur ñu ngi ñaan yàlla sunu gaynde yi yàlla may leen ndam fu nekk defal leen ndam lu sedd guyu ba ñibbi si waat fii ci Sénégal ñu di ko feete ci kàttanu borom bi yàlla nañ ci ñëpp jàpp ndax buñ gañee gañeelun kenn waa am nañ yaakaar ne coupe bi dinañ ndax def nañ war a def ñuy toog xaar yàlla nag nañu yàlla may ndam ci kàttanu borom bi loolu rek lañ doon ñaan bu baax 2-0 si jël ah barki rasulay parnal match bi gisa bi xoola cat ba cat xoola gauche xool droite xamuñu nan waaw di xaar coupe bi Sénégal nañ ñu dimbali ngir yàlla suñu siggil ñu am nañu coupe nañ ñu dimbali ñu am soxla bi am nañ ci yaakaar wallahi am nañ ci yaakaar man boog am naa ci yaakaar ñëpp machine yi xool drapeau yi ñëpp am yaakaar instant bi ñun dañoo pare pare nañ coupe bi 19 heures lañuy xaar machine yi waaw pare nañ ci. ñoom yaakaar lu yàlla na leen yàlla jàppale ak sëñ Babacar si yàlla na leen yàlla jàppale ndam rek ndam rek incha allah. doy fay amul leneen doy fay kuy doon dañuy fay. éliminé Algérie un but à zéro ñu daw ci terrain bay bëgg a dee Dóor Fayu la ñu wax. Dóor Fayu Dóor Fayu rek am na leneen Dóor Fayu. salaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki Thiès ah ñu ngi siyaar ñëpp di gërëm ñëpp final bi nag moom xoolal jaral nañu lu ne lu mu laaj ñu gërëm sarax yaa ñu di génn xoolal bi ñu ngi génn ndox mi génn nañ banaane yi duñ xëyee génn nañ fi réew yëpp ñu dañoo gëm suñu réew dañoo bëgg suñu réew ñaan yàlla dóor Algérie jël bu seetlu guy 2-0 la ñuy ñaan daa leen jëf waay Sénégal ci kaw ci kanam. Sénégal la man maa la ko wax du tey dégg nga waaw Senegalese. Oh. Thank you. allo salaamaaleykum waaw li ngeen ma laaj ba pare maa ngi leen di gërëm di leen sant bon man moom je suis sportif même bu fekkee bu coupe bi man j'aime Sénégal te xam naa incha allah mu dinaa gagné d'origine de sénégalais. oui match bi ma ci xaar rek à la première mi-temps lay door waaw incha allah coupe bi moom dina ñëw. loolu moom bu fekkee taalibe Cheikh na Ahmad Tidiane te si xalifa Babacar si laa bokk ubbi day ñëw si yàlla ak yonent bi ak si Cheikh na Ahmad Tidiane Serif waaw incha allah ok. ah bisimilah rahmaani rahiim waaw sëñ bi ñu ngi nuyoo bu baax di nuyu waa Thiès gi ñuy seetaan yëpp ak waa senegal di sant yàlla bu baax nag di préparer li ñu yëpp préparé rek mooy coupe bi waaw di ñaan yàlla mu ñëw waa boobu laay nuyoo incha allah. ah si bañ a yaakaar ndax euh, yaakaar moom weesuwul dem final ndax final moom ku fa àgg ku ne rek joma la fa yóbbu parce que 28 la ñu woon waaw ñuy génn di génn ba mu des ñaar ñaar yooyu yàlla dogal Sénégal bokk yi foofu rek la yaakaar commencé waaw moo tax am nañ ko bu baax wax dëgg yàlla. Mhm. non li may xaar mooy jom jom rek lay xaar ak ak ak ak ak fit ak football ndax li ko tubaab yi waxee rek un moom saa se joue pas ça se gagne quoi. wa gagne gogou nak manam gagne mom mi ngi départ ci esprit ci jom ji ci réew mi di xalat ci biir football bi mag ñi fi nek nga xamanteni ni ndam rek lañu xam mom lañu musa am tay danaka kuñ ko musa sekkal ku ne ñak nga wa wa soxla nañ ko soxla nañ ko waye ñom japp na ni ñun ñu leen ko gëna soxla ndax ñom gatt gatt am nañ ko ben yoon ñun nak mom yalla dogal na ba amaguñ ko ah bien sûr 1 lay doon waxuma 1 ci match bi de ñoom dañuy am benn coupe ñun ñu am benn coupe muy 1 noonu lay demee incha allah et eh, ku ma ñu xeeñ sax soxna si dafa ñu sa bakkan yow xeeñtul yow coupe xeeñu la yow. mu ngi nii kër Mor Ndiaye te coupe ñu si na jeex na tàkk bég nañ. salaamaaleykum waaw ñu ngi leen ñaan ndam rek ñu seen ginnaaw di leen jàppale ñun ñëpp ñu seen ginnaaw bu soobee yàlla coupe bi day ñëw bu soobee yàlla ñu ngi leen xaar bu soobee yàlla waaw ñu dem aéroport ji leen coupe bi ñëw ñu feete ko bu soobee waaw kontaan nañ nag. ne seen ginnaaw di leen supporter di leen supporter dañuy xëy suñu xol firi kon donc Sénégal jëm kanam coupe ñëw Sénégal jëm kanam. ah di leen di leen ñaax lu bari di leen ñaax lu bari joueurs yi yooyu noonu dugg ci terrain bi moom dafa metti euh, jouer quatre-vingt-dix minutes yoo xam ne moom mooy loolu jongante boo xam ni euh, ñun ñëpp a bëgg coupe waa algériens yi ñun tamit ñoom ñëpp a bëgg coupe bi.

waaw eh, nii nii koy baax moom mooy loolu quoi. ah match bi non incha allah dañuy gagné 3 rek laa gis de ci kàttanu yàlla dañuy gagné incha allah waaw coupe bi coupe bi moom tey tey moom guddi guddi moom dina fi ñëw quoi incha allah waaw ñoo koy waaj Sénégal Algérie moom moom ngoon dix neuf heures lañ koy jëli indi ko fii day jaar Thiès après dem Ndakaaru ngoon nag ku ma bëgg gis nag da ngay dem promenade des Thiès waa caaya ju sax mi ci biir leen di xamal ne Algérie dinaa ko dóor deux zéro Algérie tere nga nelaw dina la duma

ndax Sénégal yëpp pare nañ boo demee Ndakaaru réew yëpp tey yu nekk quatorze régions yi nekk Sénégal ñoom ñëpp ñu ngi waajal li nga xam ne mooy final bi maa ngi ñaan nag ci kàttanu yàlla moom rek moom moo am ndam moom rek moom moom ndam maa ngi ñaan yàlla ne yàlla may ndam li ndax dafay war a ndax Sénégal ku nga xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk bàyyi te lii nii lu rafet la ñun nag fii lañ nekk maa yaa ngi nii lépp a ngi fi kon dañuy jaajëfal képp koo xam ne Cees nga bu ngoonee ñu génn dem promenade de Thiessois ñu fese feetu li nga xam mooy mooy mooy victoire bi Algérie su ma ko jàppee dama koy defal bagage Algérie su ma la jàppee dama lay daan gësal gësal su ma la jàppee dama lay daan gësal gësal Sadio Mané du ko ci caari gësal gësal dugal bi Sadio Mané eh eh <laughs> Kontelde! Devam edin! Sırayla out. Sırayla out. Thank you. Euh, match bi ñun instant yi xaar ñu dara parce que xam nañu ndab li ak Sénégal ba pare parce que xam ñu Sadio am na ñaari bii ba pare te Gana Gueye xam nga ni Sadio fu mu dem du ko fa bàyyi kon ñun xam na ñu ndam laa ngi Sénégal ñun gis nañu 2-0 yi ba pare kon amatul lu ñuy xaar daal ñu daal kontaan nañu parce que victoire baa ngi Sénégal daal waaw c'est le Sénégal qui gagne waaw. dina ñëw monsieur waaw waaw mais loolu lu ci dara ñun tamit wóolu nañ suñuy joueur waaw mooy loolu <laughs> sant maa ngi maa ngi leen di siyaar di leen nuyu ku ci ne turam ak santam waaw sant rek xanaa bëgg a gañe rek nekk ci mayo di jaay kërti kërti ku ñëpp sol mayo rek xanaa ci lañ nekk di ko waajal bu wér a wér waaw waaw am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar lool xam nga jaam moom sabab bu rek la mën suñu borom mooy dogal mais nañ jéem rek incha allah gëm nañ ni ndam du dina ñëw daal yéen ah, ni ñu ko jëndee moo xaw a cher parce xam nga prix bi bi li muy gën a dem rek gars yi di yokk prix bi te soo ko jëndee day gën a day gën a cheraat fa yow boo ñëwee faa nga yokk ci pour mën a am ci dara transport beeg yooyu ni ñu koy amee mooy xaw a métti ñun dañ ciy teg dara rek commerçant moom boo ko fay jaay la rek baaxul ñun lu mu ci am rek dañuy jaay mu dem mu jóg suñu loxo moo gën daal merci beaucoup jërëjëf. damay supporté bëgg Sénégal jël ndam bi à 100 pour cent nag di ñaan yàlla yàlla ñu ko si jàmm ak salaam kontaan nañ félicitation dañu ne xale yi jëndal xale yi pour ñu bëggee rek bu Sénégal jëm kanam rek ndam rek ndam rek incha allah yàlla def jàmm yàlla yàlla def jàmm yàlla yàlla jàmm. soxna si naa def ñu ngi nii rek. waaw dañuy supporté ñun Sénégal rek lañ am barki Serigne Saliou Mbacké Sénégal rek lañ am lekkatuñu nelatuñu ndax Sénégal yàlla na yàlla may nam ci su gënee ci ñoom ci darajee Serigne Bara Mbacké bi barki Serigne waaw Marseille xoolal sama yaay ñoom ñëpp a ñu supporté waaw dugal ci. ndax Sénégal ca kaw ca kanam ndam li fii la jëm si gis nga sama parasol bi waaw man damay supporté ñëpp ay supporté barki Serigne Touba yàlla nañ gagné ca kaw ca kanam tamit suñu njëglaay am nañu yaakaar ndax Sénégal ñu baax ñëpp fi lañ jógee. kon am nañu yaakaar ci ndam li dina ñëw yàlla nay ñëw tey suñu njëglaay kontaan nañ de ñaan yàlla coupe bi ñëw ci kàttanu yàlla ak baaxam waaw ñu ngi waajal match bu baax moom ñu ngi waajal match bi di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam waaw Sénégal jëm ca kanam incha allah loolu daal lañ bëgg moom bu ngoonee moom yàlla may ñu ndam loolu lañ bëgg incha allah yàlla nañ ko suñ borom defal gagné gagné rek sëñ Babacar dafa leer. waaw oh, dëgg neexul. waaw Sénégal ca kaw ca kanam ci lu baax coupe ren day ñëw fii dëgg neexul 2002 lañ gëj a final final bi ren day ñëw coupe day ñëw nii ca kaw ca kanam ci lu baax waa Sénégal dëgg neexul. <laughs>

inahaɓiɗo sekereke tahen kesteketeke nahasɓiɗo keseket teketeke tahen équipe national sénégal kesekereke yanañu am ndam si kanam jëm sa kanam moo gën waa fitu abi ay xam ne dëgg neexu dama bàyyi lépp ndax ñëw te ca Ndakaaru sa laa leen bëggoon de waaye kes kay mooma ñor te dëgg neexul te wax télé bu ñu ñëwee sax damay wax te dëgg neexul te wax télé nga nii tey félicité bi ngi nii félicitis tey xam ne dëgg neexul ñooñu yàgg naa ñoom manoo yow ma yéen démb la woon di soog a ñëw te bu kii di ñëwoon Wally Seck ba mu fi ñëwoon damaa ñëw jàkkaar ak yéen ñun nee na këy yu bari may ma bàkki yonent bi tey sama xarit namoon naa loxo bi lu yàgg dëgg bu leen demee nuyu leen ma ko bu baax yàlla ñu am ndam ndam bu rëy bàkki yonent yi si bàkki seen faalu daa war a dóor ko waa si jàmm ak salaam na gone dal ñun dañuy waaw allah rabbi dañuy dóor si kanam rek waaw dañuy xaar kay ah ñu dundee ko rek feetoo ko rek su neex rek ñu ko jël ak rek waaw si Lions yi Lions bu booy moom ay jàmbaar lañ moom football lañ de ay ndaanaan lañ laay football lañ de ay ay yëngal gisam